seet tet tet li ma doon wër far naa ko gis te muy boutique bu yàññi bu am bépp façon tissu doxalal mujjee naa ko gis ci zone de captage ak Asi boutique dafay jaay ay bazin tissu brodé jupil ay tissu xew façon xew booy mënti dem soxla tissu bu rafet ñëwul fii ci Asi boutique dañ fi jaayaale ay wax voile yi nag oh xoolal ma dentelle yi ay drap yu rafet boo ko bëggee ñëwul fii ci Asi boutique dañuy jaay penza broca ay jupil coton suñu boutique bu yàññi bii lépp la ñu soxla ci wàllu sañse boo leen fi ñëwee rek da ko am xoolal dañuy jaay ay kol ay abaya ay kol asli siphon ak kashka ak lépp luy vaisselle soo ko bëggee ñëwul fii ci Asi boutique Asi boutique dafay jaay ay sac yu rafet ak façon couleur bu leen ci bëgg di jaay ay dàll ay parfum moo xam parfum de chambre parfum yaram ay cuuraay xeetu cuuraay boo leen soxla nag bu leen ñëwee ci Asi boutique fekk ko fi am na cuuraay nag cuuraay suufu Médine oh Asi boutique daal lépp am na ci biir boutique am adresse ci doonu zone de captage côté bassin de rétention bi numéro téléphone am di 77 32 64 01 wala 77 996 59 40 Asi Boutique daal noppal na jigéen ngi seen wàllu sañse ak wutub bagage jaaraama Asi chers internet yu enquête 221 euh, dal leen jàmm dal ci li gën a fës jot yëglekaay yi ñu commencé na niki doomi aadama laal wax mujjee nañ ca ñàkkee seen bakkan fukki nit am ci ay blessures yu méttee métti ba dañ leen mujjee rawale yéenekaay bi dellusiwaat ci arrêté préfectoral bi nga xamante ni mujjee na ca dëkk ba manifestation yi mel ne tulleeg male laa la wax en tout cas ci guddi mujjee na faa am ba ñu jàpp sax ne tey ji war nañ fa def benn CRD be spécial ngir mën a waxtaanee nag recrutement yi di am ci biir dëkk ba xale yi nag lañu bëgg moo dañu daal leen di jël ñuy liggéey waaye tamit di leen fay lu baax gouverneur bu Kédougou nag ni tey jii moo fas yéene jiite nag CRD bi yéenekaay bi ne gis nga luy njig di njaag nag préfet bu Saraya bii moom mooy njaag ndax population ba jàpp nañ ne exploitation minière bii moom da ciy loxoom te xale yii niñ ci war a liggéeyee liggéeyee aadama yi bëgg nañ nag ñu ubbi cëb enquête mu daal di ñoo faat ñaari doomi aadama dóor leen balu seen bakkan ñu daal di leen di lijjanti Birahim Seck bu Forum Civil di xam ne ci biir yéenekaay bi ne lii yëpp nag ñoo ngi ko doon avertir état bu Sénégal faale wuñ ñu ba musiba mbaa bokkumba gi am ci nag la libération yéenekaay ñëw ci détails yi ne manifestation yi mu ngi doon am ci duwaanu Saraya ci zone bu Xosanto ñaari nit nag ñoo ci mujjee ñàkk seen bakkan kenn ki mag la sax am na juróom fukki at ak juróom ñett way jur la boo xamante ni juróom benn bantam ñu ngi toogoon ca kër ga di ko xaar moom Bakary Cissokho balu fetal lañ ko dóor mu daal ñàkk bakkanam yéenekaay bi dem sax ba xamal ne frère la ci meeru Kosanto keneen ki ñu dóor balu fetal tamit mu daal ñàkk bakkanam mu ngi wuyoo ci turu Abrahim ñaar fukki at ak juróom-ñaar la am te fit nag gii fukki nit ak ñeent laa wax jamono ji ñoom ca loolu hôpital ya ay blessures yu grave la am waaye nag luy njig di njàng arrêté préfectoral bii moom mooy njaag moo tax seen dëkk ba ci xët bu yaatu ne Antoine Diome mu mujjee indi solution nag laa la wax ca dëkk ba te ni ki tey jii tamit Omar Sarr danañ ko envoyé laa la wax ca duwaanu Xosanto dal nag amagum na ca dëkk ba yéenekaay bi desuwaat ci benn bokk yaakaar gi nga xamante ni saa yi nu xëy rek laa la wax xam ku dëggal boppam ne dafay nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw depuis ba président Macky Sall nag tànnee ki nga xamante ni mu di Amadou Ba teewul am na ni laa la wax ñu ngi xàll seen yoon bokk na ci Birima Mangara mi nga xamante ni nekkoon na fi ancien ministre du budget nee na moom it dafay dëggal candidature am ci élection présidentielle yi di ñëw gannaaw gëstoo xoolaat yoonam moom Birima Mangara nag dina déposer candidature am ci bañeeru àndaat defaraat Sénégal yéenekaay bi ne keneen ku ñuy xaar kay niki tey ji ci talaata ji bu dëggal candidature am du kenn ku dul Mame Boye Diao mi nga xamante ni ba Macky Sall tànnee laa la wax Amadou Ba ci la commencé fësal boppam woo presse bii ne leen talaata ak tey jii dana def déclaration ñëpp di xaar nag ci woo gii mu woo presse bi mu dëggal boppam daal nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu noppi daal di démissionné nag ci bépp poste de responsabilité boo xamante ni jox nañ ko ko moom Mame Boye Diao nag niki tey ji lay fas yéene def déclaration en tout ko doon tagg ne moom militant bu discipliné la waa xam nañ ko bokk na ci kàddu yi nga xamante ni jël nañ ko ci moom ñeel tànneefu président Macky Sall bii di Amadou Ba président Macky Sall ko neex ci biir coalition bi mën na ko jàppee sax le meilleur choix waaye man it am naa droit daal di réfléchir xool fu may teg sama tànk ndax ki tànn tamit doy na ma intérêt président Macky Sall nag moom maa booy jaaw nee na moom na gañe rek ak moyen bu mën ci teg moom na gañe rek waaye nag war na xam ne benn candidat dong ci biir Benno Bokk Yaakaar mënul tax ñu gañe la fësaloon fan yi la ñu génn moom Mame Boye Diao l'observateur ne ko en tout cas taxul président Macky Sall moom tànn la Macky Sall jamono ji ki mu tëg bëtam jàpp na mooy profil bu baax bi moo di Amadou Ba moom la def nag muy candidat wu Benno Bokk Yaakaar muy benn candidat boo xam ne amul beneen wujj nag ci biir Benno Bokk Yaakaar noonu la ko président Macky Sall xamle ci déclaration bi mujjee def la ca gis nag mu topp ca nag moo di ay yu bëri yoo xamante ni judd na démission yi may nettul leeg male frustré yi kenn ku ci nekk nag la wax jël yoonu bi ñu xamal ne leneen luñ nar a tas nag fi mu nii mu di assemblée nationale majorité ba laa la wax fi mu nii mu ngi bëgg a explosé wu gannaaw président Macky Sall ci élection présidentielle yi ñu jëm même association des maires du Sénégal fi mu nii féewuloo am na fa ndax am nañu ànd ak Amadou Ba am na ñoo xamante ni ànduñu ak moom direct news ne keneen ki àndut ak Amadou Ba kay fi mu nii mu di Aly Ngouille Ndiaye ci gouvernement bi wan leen ginnaaw waaye yéenikaay bi xamal nañu ne fi mu toll nii am na problème de ndax moom Aly Ngouille Ndiaye ca diwaanu Linguère fukki maire ya nga xamante ni ñoo fa nekk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yépp nag dañ koo mujjee du mooyu ànd ak Amadou Ba mi nga xamante ni mooy tànneefu Macky Sall waaye teewul Aly Ngouille Ndiaye moom mu ngi ànd ak fulla ak faydaam rek nee na du mës a soutenir nag Amadou Ba léegi fa ne jamono ji nag la ëtt politique gi neex mel na ñoom ci pré wax jamono ji dañoo mel ne ku rakkaaju yéenikaay bi def ci taxaw seetlu te ñu xamal ne Benno Bokk Yaakaar ba ñu ba jiital nag seen seen candidat bii di Amadou Ba bi tamit ñoom it tooguñ seetaan bàyyeewuñu terrain bi laa la wax waa Benno Bokk Yaakaar ndax Mimi Touré jamono ji laa la wax mu ngi terrain bi dem na sax bay provoqué candidat wu Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba ne ko damaa bëgg ñu jàkkaarloo ci benn débat maag yow face to face ñu daal di waxtaan su boobaa dinañu xam kan mooy candidat bu baax bi fekk jamono jooju moom xalifa Sall moom ngi ca terrain ba mën na la dimanche bi ñu génn ci la reprendre laa la wax fi too toll nii ay tournée am nekkaat ci terrain bi ngir mën a mottali na communication yëlekaay bi en tout saa yu nu xëyee gis candidat yi di gën di bëri waaye tamit di gën di dëggal seen bopp nekk ci terrain bi ci terrain bi Bougane Gueye ci terrain bi Déthié Fall jamono ji ci terrain bi yi ñu ngi koy gis enquête yéen i kaay moom def taxaw seetlu ci yi nga xamante ni ñu ngi fësal seen bopp ci élection présidentielle yi ñu jëm ne gis nga bu Ousmane Sonko mi bokkul ci élection présidentielle présidentielle yi ñu jëm ah carte gi dana jaxasoo de ndax dinañ ci gis ay candidat yoo xamante ni ay ndaw lañu soogu dugg ci langue politique gi waaye tamit dinañ ci gis ay candidat yoo xam nañu lool ci ay élection présidentielle di xëcc rek te ba léegi si mënuñoo jot nguur gi dinañ ci gis tamit ay candidat yoo xamante nii dinañu sonn lool pour convaincre askan bii ba ñu voteel leen ndax bëri na ci ñoom ñoo xamante nii askan bi ci boppam moo leen mujjee du mooyu raxasu seeni mbir ne Amadou Ba responsable yoo xamante ni lañ koy xamal mooy mu jéem a ubbeeku jëflante ñëpp ngir mën a nag Benno Bokk Yaakaar rawatina APR gi nga xamante ni fi mu nii mu ngi jëm ca tas yéenekaay bi def ci révélation yu bëri te ñu xamal ne moom nag Amadou Ba commencé na cee def ay jéego ndax bañu ko tabee ci saase la woo Abdoulaye Daouda Diallo téléphone la ko woo directement woo Mohamed Boun Abdallah Dionne fi mu nii nag luy ñëpp di xaar ci moom mooy mu xaatim Sénégal gi nga xamante ni bu ñu ah ji ñu toll nii nag am wiir jafe na lool ku nekk ak la muy jàmbat pharmacie Al indi leen ay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 émission bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di bu dee yéen ñi nekk ci douane Italie jokkoo leen ak El Bachir numéro bi di bu dee yéen ñi nekk ci douane Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone di plus 34 602 ñi nekk ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wir gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum